ndeysaan mbay yi de. Eh, <laughs> maa ngi ziar de. yaa ngi mel ni kuy gerte taaw. waaw mais dama doy waar. dama la ko doon nëbb nag. mais découvrir nga ko <laughs> mais maa ngi ziar. Euh, wane nga ni lépp lu mbër yi nekk yaa ngi ci. bokk nga ci mbër bi njëkk a lancé appel. appel boobu tey moo indi Boy Niang woote moo waral tey association des lutteurs en activité woote. loolu lan la ban yëg-yëg. waaw loolu sant yàlla rek tey di wane ni tey am mag baax na. Hmm. gone baax na. parce que tey ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg. ñoo bokk li ñuy liggéey xëy na ñoom ñoo ñu ci jiitu. mais ñun tey ay xale lañ liñ ci am ak liñ ci def ñun bëgg nañu def lu ni mel. moo tax tey bi ñu toogee affaire bi yàgg affaire bi metti ñu metti ci ñun ñun booy yi. ñu def man ma def déclaration tey loolu indi ñoom ñëpp ñu jóg. pour dooleel ñu parce que ñun seen i rakk lañ. moo tax ñun tey ñu ngi seen ginnaaw ñoom lu ñu dugg rek ñun ci loolu lañ bëgg lu ñu ànd ñu ànd ci. parce que xam naa ni seen xeex yëpp xeex xeexu intérêt làmb la xeexu collectif la bu xeexu personnel moo tax ñu leen di ñaanal jàmm tey tey moom ñu seen ginnaaw.